RTDR Média. ah RTDR meja. Kanji production. Kanji ah ye, ñu ngi lay siyaar Jam. Lep terangkil. si tranquille. mais naka lamb ji. lamb ji waaw dox de. mais lan tamit daa bàyyi lamb wala qu'est-ce Beri su dimanche bi di ñëw bëre dimanche. sa kan kan. mais lan tamit kañ la kañ la waaw 2019 la foog naa xaw ma 2020. 2019. waaw. nga ba léegi mënu luy problème bi. man mun naa laa daan. nga dem jëli ki ma daan. bàyyi ma fi quoi. bàyyi la waaw. gars dañ may moytu quoi waaw. gars dañ may moytu. bu doo doomu daangu. ma daan feu rouge. mu dem jëli feu rouge. Ah. soo doo jël. nga dem jëli koo xam maa daan. amna promoteur fane nak mo mu ma doon waxtaanal quoi pour may ben boy sens wa mais nak lu mako laaj bëgguma ko fay xamna da ko munul ma ne ko nag mënu maa maye sens may xaalis may xaalis waaw waaw waaw man lolou duma ko def mais moment bi kan moo nek sa xel ci biir lamb pour ko ma wara beurel giri de amul combat ma ngi combat la waaw amul combat ay Moussa ndoy amuñu combat la jël ah suma jëlul mo xam man neexal ma benn mbër de. 17 combats la def 14 victoire 3 défaites musuma niil. musuma niil musuma dóor ma génn saako yi. Alioune Seye mii bëri yaa ko daan de. maa ko waaw. ak ay moromam. Saalum Saalum bébé Saalum. super étoile. xam nga Malaw Seras. ñu ma daan bëri nañ de. <laughs> dugg gala jël pay. ndax yaa ngi taxaw di xaar fi mu toll nii rek. waaw maa ngi maa ngi entraîné rek. deux séances ma xëyee dem géej su ngoonee ma dem salle. contact wala ma def musculation. waaw. tey noo gisee Modou Lo Boy Niang. Modou Lo Boy Niang man Boy Niang mooy sama favori de. Ah. Boy Niang mooy sama favori. imagine rek xam nga làmb moo affaire calcul la rek du ma sëriñ du ma dara ma calculer rek yaakaar xool seen façon di bëre yi seen façon de faire yi daal moo tax ma foog Boy favori. Boy bi ñëwoon premier janvier diggante ak Balla Gaye Modou Lo bi ñëwoon fi euh, novembre diggante ak Ama Baldé. combat bu neex la parce que boo xoolee ñoom ñaar dañoo yomb di am physique. ci lamb mais mais boo ñaaw su ma ko doon conseillé dama ko wax mu yokk contact bi gën a liggéey ci vivacité. waaw parce que Modou Lo nu mu toll doole bi moo ëpp loolu. waaw doole bi moo ëpp jëmm ji a day trompé waate waaw mais ñu gis Modou Lo day may adversaire euh, euh, mu jël temps du may mu noyyi te Boy Niang daa bëgg a bëri bu nga day kàcce na jël temps non man daal saa soo bëggee dégg-dégg si li ma imaginé ñoom ñaar. xam nga boo boo ñaa seetaan combat am yëpp yu mu bëree Lo combat yi musa mos a bëree ko aussi ñima analyser ñom ñaar seen façon bëree yi xam nga Modou Lo moom mun a tula bëree instant lu mu bëreetul lu mu wul musul am boo ñaar lu muy bëri ni loolu la mun munu ko yokk waaw ñom ñaar bama ma jëlee seen ñaari bëre yi su fekkon may carte sama xaalis si boo ñaar laa koy tek tay boo ñaar li ñuy xaar ci moom Ama Baldé bëre daanu Eumeu seen bëre daanu. non boo day def lu mu waron def ba ma laamu nak la mo nag daanu yak ko quoi ay modlo ay boyña xam nga ay ñooñu noonu essay yi ci lamb dem nañu o oh, o oh, sommet quoi mo ngi mel tay ji nga doon beure raw gaado ba dem poids lourd fa nga mëna yam comprend nga ñoo foofu lañ ñoo essay ñew satisfaire sen sen sen supporter yi même suñu lay daan ñu daan la ci poula ak ngor so joggé nga dem ni avant balle def xëc sa adversaire su la daané nga akolaat ko gaay ñibi ci jamm comprend nga ñoom ñep essay yi lañ toll ci lamb ñoom état yi amatuñ droit di wax loo xamante ne day yàq làmb wala mu koy muy influencer supporters yi ñuy ragal a ñëw muy Boy Niang muy Modou Lo muy Ama parce que ñooñu fu ñu yegg si làmb la quoi ñoom ñoom état yi CNG waratu leen baal dara xamul tax parce que ñoom ñooy kilifa làmb yi passé at quoi mais si si si fi ñu nekk waaw waaw exemple bu rafet lañ war a wone comme Ama Baldé ñoo ngi koy félicité ak moom ak Modou Lo yëpp parce que ñoom ñaar yëpp ñoo ñoom la ñu war parce que Ama Baldé su ko xëccoon Modou Lô bu ko akolaat Modou Lô na ko li ma wax signature bi yëpp sànni ko kon loolu du am aussi ñoom ñaar 50 50 la moo tax CNG lu ñu def loolu rafet la lu rafet lañ def xam nga gars yi wax na leen delloo seen xaalis mais man déglu naa Bira Sène mu ne delloowu leen seen xaalis dañoo jël si keesu CNG bi xam nga loolu ñoom it seen droit la parce que kuñ dënk yaay xool li la dënk nga xool lu rafet nga ko si yokk loolu ñoo ngi leen ci félicité bu baax a baax waaw CNG bi waaw. ni mu ñëwaat ci làmb galaaj yu bariwul wañu lalu yag na si lamb lalu lalu, loolu xam nga ñan la jaaxal xam nga lalu ñan la jaaxal mais ci VIP non loolu ñu muy jaaxal moy ñu musul setan Yékini def nako fi Yékini bëri na lamb yo xam nga takul dara sër bi kese nga gis ndigli bitel yëpp ki yo balaxo sango kan mo lay won mo Lo sangowul këram kan ma la wax bagage mi wala mu bayyi sëriñ yi kër ga ñu def li ñu def kenn wax kenn xamu dara kenn xamu dara parce que lamb aussi tamit li daan do ko ñëw di sul si geew bi fi de li daan kër ga lay nekk waaw war no deug la lolou deug la parce que tay ji bo xolé beuri beuri bi beuri bi gëna mobiliser ay bidel en général sen combat yi dañ leen daan dé ko sétlu waaw waxuma nak ñëpp dé mais en général 95% yi dañuy ñak kon bidel yi daanul ah, té kër serigne bo dem amna ponkal fay yewo nak bu ne der ba mo tora sax ba waaw ay 100 nangam kilo mais soko takalé fi ngëmu serigne bu ko joxon xam xam yek jet bi yëpp jangal ko bu ñëñ daan ko waaw kon moo lay won ne sportif daa war di sport. mais tey euh, Boy Niang loo koy moytaloo ci Modou Lo. Boy Niang warul mooy dara si Modou Lo Modou Lo warul mooy dara si Boy Niang. combat boobu xam nga lan war nekk. combat sportif. ñu ñëw si comme lamb ji animé combat bi xam nga supporter yi toog tranquille sànq ba rafet. arbitre bi sifflé comprendre nga man li ma analyser nii mën naa ñàkk de waxuma day am force de sama analyse la keneen analyser leneen mais ku mënti daan Sénégal mooy gagné quoi. mënoo modlo mbeur bu munul dan ne nekkul si làmb bi soo bëggee dégg-dégg mbër bu modlo munul dan daan ngembawul fi déedéet li man ma la ko wax mais nak si combat boobu man Boy Niang moy sama favori waaw moy sama favori suma don tek sama xale ci mom la koy tek waaw. am ko ci dura ku ci xuloo yow mo la tooñ. waaw kay mais nekul nak ay affaireu analyse mo parce que petit petit la deug de tamit aussi dama analyser sportivement waaw waaw. kontaan naa ci yow. waaw ma la gëna bëgg yalla ma yàlla na ñëw rek yàlla na site bi jëm kanam dem ba nekk télé jéey moom wax dëgg yàlla moo ngi jàppale moo ngi ja kanji moo ngi jàppale yi di jàppale promoteurs yi wax dëgg yàlla te kayan bu baax la quoi man may dégganteeg moom souvent waaw nit ku yaru ko dal la dal na yàlla yokk wërsëgam ak teraangaam jaajëf jaajëf waay combat bi du yàgg maa la ko wax du yàgg door mu daanu eh lu xew day jeex takk na ko caxabal eh la ilaha illallah ay eh, waay dix mille bor leen du nit waay loolu la dix mille daan na ko jël bu rëy nee na affaire bopp la yàggul de yàggul daan na ko jël bu rëy daan na ko jël bu rëy oh dix mille problème du nit jël bi na da koo caxabal wéeru ko moom oh mi ngi noonu moom dix mille problème est-ce que blessé wul est-ce que ana saapoor yi ñëw leen mu gaaw daan na ko jëlee bu rëy xoolal keel door daa waaru xoolal ma keel door daa waaru oh 10 000 10 baa nga am problème Faar yaa nga problème moom 10 000 problème oh 10 door ndeysaan daa waaru xool ko moom moom ak manager bi Pambay mu ngi naan lu oh Clédor mi ngi noonu mi naan ko làmb la kii bëre mooy daanu demal defaruwaat daanu na daa jëli biir rëy oh mi ngay wax ak moom moom manager Pambay oh làmb ngi noonu. ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu ci BTP travaux de bâtiment génie civil maanaam lépp lu jëm ci wàllum tabax kër réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw ba mu établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox kaya gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi, li ko ci fondation élevé tabax houle, ak raax ci second œuvre bi nag ci di fekk électricité ak plomberie ETDR amno nañu ay boutique